صل الإسلام دفن عثمان ذو النورين كل قد اعتلى ذر المجد في الدارين والكل سندد إن عثمان ملي كو يالا ترال لا كو أم ترانغ تبرم نياري لير لا أدنا الأخيرة نيوم نيب سخ أي سنغ لا نيوم يب كون عثمان ملي برم لير لا مي عثمان مي مكيمان لا عثمان ملي كو عثمان مي كو توفيق لا عثمان مي ku yaru la waaye Ousmane Mélé itam ku yéeme la kële yonente la nekkoon ak kii nekk ak alxuraan kële amoon na baatin mais kii itam nekkut bëti kese de kële moo nekkoon jamono ji gën mooy jamono yonent kii nekk jamono ji yées ànd ak loola moo am tawfiix kële mooy Ibnu Affan moo tax dañ ko faat ki mooy Sonko na moytuñu sànk